lillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa sayyidil mursaliin nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa ashaabihi ajmaiin wa man tabiahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amma baad mbokki jullit yi gannaaw bu nu santee sunu borom tabaaraka wa taala julli ci ab yonentam noo ngi ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu wërsëgale nu tawfiiqi ixlaas ak jëf joo xam ne jëf ju sell la yoo xam ne moom rekk a tax bokk na ci yërmande sunu borom tabaraka wa taala jaamu yàlla yi nga xam ne moom lay sant nit ñi mu xeetale ko mu doon ay jaamu yàlla yu bari yu bokkul yu wuute nga xam ne goo jóge rek jëm ci geneen boo jóge ci koor jëm ci asaka boo ca jógee jëm ci aj te loolu lépp ci biir loolu yaa ngi ànd ak ay julli yoo xam ne julli yu takkook yow la ci guddi ak bëccëg ak ngoon ak suba mu doon loo xam ne moo lay sellal di la laabal ci bépp bàkkaar kon loolu lépp mbokki jullit yi bu ko jullit bi xool ak taxawaay bi mu ciy taxaw seytaane day am naqar lool ci moom ndax koo xam ne bis bu ne yaa nga ci julli bu woor jotee yaa ngay woor boo amee loo génnee asaka di ko génnee boo mënee aji dem aji kooku lu naqari seytaane la waaye nag ngay def yooyu rek du tax seytaane ne kii rëcc na ma daldi lay bàyyi am na yeneeni bunt yu muy jaare ngir yàqal la sa jaamu yàlla moo di li ngay def boo ko geestoo ci gannaaw jàpp ne dangaa def lu bari jàpp ne man jàmbaar laa ndax damay julli damay woor damay def nangam damay jóg sax guddi di naafi la su boobaa seytaane ma nga lay nax ma ngay yàq sa jëf as-salafu saalix ni ngeen ko xamee ci ramadan dañ daan def bu duggee ba jeex danañ am juróom benn weer yoo xam ne jaamu yàlla yañ ca doon def dañuy ñaan yàlla ndax mu nangu ko ku am njàqare jàpp ni nanguwuñ sa jaamu yàlla amoo waxtu wooy damoo naan man maa julli lii wala maa def lee su juróom benn weer yooyu jàllee ñuy ñaan yàlla ci seeni julli mu àggale leen ci ramadan bay ñëw kon ramadan dafa amoon maanaam mu rëy rëy ci seenu dund melokaan wi nga xam ne nag bu ko jullit bi melowoo ci ay jaamu yàllaam dana mucc ci seytaane mooy melokaanu sellal mooy benn charte bi nga xam ne mënta ñàkk ci jaamu yàlla ngir ñu nangu ko sellal nag buñ ko waxee mooy nit ki li muy def yàlla kese tax yey dox diggante nit ki loolu nag dafa bari yooye bokk na ci njistal di def dara ndax bëgg nit ñi gis ko wala ndéggtal di def dara loo xam ne nit ña déggu ko woon nga bëgg ñu dégg ko ak mana di wax jëmali ca bopp wane ne yow yaa def nangam man maa wax lii maa def nangam bu dul woon ak man nangam du am foofu muy bunt yi seytaane di jaare nag ngir yàq sa jaamu yàlla gi ngay def loolu moo tax alquranul karim buñ ko seetee xool sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy fekk la cay nekk ci ay laaya ak i xadis yoo xam ne dañuy digal nit ki mu sellal ak jaamu yàllaam kenn xamul nu mu lu bari la borom bi tabaraka wa digle na boo demee ci suratul araf ne borom bi tabaraka wa dafa digle maandu dafa digle itam ngeen di julli ci jullikaay yi waaye mi ngi wax ne na ngeen koy jaamu te sellal ko na ngeen koy jaamuta sellal ko sellalal ko diineem ji mooy loo xam ne yàllaa ko moom nga jox ko ko moom dong keneen bañ cee amuk cër jaamu yàlla gi bi nga taxawalee di ko def yoonu keneen néew ci sa borom tabaraka wa taala rek nga koy defal kon bul bàyyi xel keneen nee na it fadoohu muxlisiina lahu diin walaw kariha alkaafiruun na ngeen koy jaamu te di ko ñaan boole ko sellalal ko diineem ji donte loolu sax dafay dagg xol yéefar yi mu di leen metti ndax xam nañ ne su ngeen sellalee mucc seytaane nee na su fekkee loolu lay jurit yéen sax leen ci loolu kon aay yi nga xam ne dañuy digle sellal yu baree baree bari la yoo xam ne suñ ko toppee ak xadiis yi loolu ci boppam rek doyoon na ab xutba waaye xutba bi loolu rekk da ko taxul a jóg li ko tax a jóg mooy ñu xam ne gannaaw bu alxuraan jàllee ak sunna asalafu saalix ñi nga xam ne ñoo jàng alquran ak sunna te dund ko dundiin woo xam ne wu wér la sellal dafa am lu rëy lu doon présenté ci seenug dund ginnaaw nag kenn ku ne ci nun dafa bëgg ña muy topp mooy ñu baax ña wéyoon ña jànge woon ca saxaaba ya ak ña jànge ca ñooñu ak ña jànge ca ñooñu ba ba ñu agsi ci suñ jamono jaadu nañu xam dara ci seenug dund ak nan lañ doon wattandikoo lu leen di yàqal seen ixlaas xëy na buñ munta mel ne ñoom itam nu mën a jariñu ci ci seenu dund ak ci seeni melokaan dañ daan wax ñoom ne jaamub yàlla bu dëggu boo xam ne yàlla rek moo ko tax di def nee nañ kooka du bëgg a siiw jaamu yàlla bu dëggu kooka siiw itteelu ko ñi xam ne mooy diw loola itteelu ko kenn ci ñoom da daan wax ne neexaay bi nga xam ne gëm yàlla ak àllaaxira moom la am nit ki du ko am li féeg mi ngi bëgg nit ñi xam ko xam mooy kan xam ne bu génnoon ci marché bi dox sax day bëgg ñu xam ne kii mooy diw sàngam daanañ wax ne kenn ci ñoom nee na bëgguma kenn xam ne toppkatub yàlla la lu dul yàlla mi may topp bëgguma kenn xam ne toppkatub yàlla la lu dul yàlla mi nga xam ne moom laay topp loolu ay régal la yoo xam ne ñoom dañ ko daan faral di wax waaye nag dañ ko doon dund itam imaam bu mag bu ñuy wax abdurahman ibnu abi layla daf daan nekk ci këram di julli julli la bu nit ne asalaamaaleykum day dagg naafila gi daal di tëdd ci lal bi lu tax mu ne dafa ragal su kooku duggee fekk ko muy naafila mu yëg ne moom mii dafa saxoo rek di la su ko defee moom am na lu mu koy jural moom itam ci bakkanam ndax su kee génnee dana tasaare loolu mu xam ci moom mu tasaaroo ci nit ñi su ko defee loolu mën na ko jural ak waru nee na nit ka day dugg ba génn ne kii daal saa ñëwee rek fekk mu tëdd xanaa moom tëdd rek lay liggéeyee nee na loola moo ko ci gënal ku ci wax Hamza ibnu Dahqaan dafa ñëw ci bichir ne ko dama laa bëgg a ziyaare si mu ne ko seetal bis bu la neexee rek nga ñëw nee na benn bis ma ñëw këram dugg gis ko mu nekk ci pakkuus bi muy jullee muy julli ma taxaw di ko xool mu julli ñeenti rakkaay yoo xam ne rafetaay ba nee na man munuma ko moom miy nettali nee na munumaa julli julli gu mel noonu waaye nee na mu sujjóot ma dégg ko mu naan yow saa boroom yow mi nekk ci kaw aras xamal ne day nëbbu moo xam nga ne yow day nëbbu moo ma gënal siiw yow saa boroom yow mi ne ci kaw aras xam nga ne day ñàkk goo xam ne damay am rek lu yem képp ci sama dund moo ma gënal koom mu ñépp di soow yow saa borom yow ma ne ci kaw aras xam nga ne day dara gënalu ma bëgg la yow yàlla moom mi déglu nee na bi ma déggee muy ñaan ñaan yooyu mënatumaa tëye sama bopp ma yëkkat di jooy nee na bi mu déggee jooy yi mu ne yow sama boroom yow ma ca kaw aras xam nga ne day su ma xamoon ne waajoo ji mi ngi taxaw foofu li ma doon wax du ma ko wax nee na loolu la jeexal ak ñaanam kon ñooñu tasaare seeni mbir ak seeni rafetaay ak seenub liggéey taxu leen woon a jóg al bu mag bu ñu wax al amash nee na dama nekkoon fi Ibrahima Naxayi moo doon ab sëriñam bi ko doon jàngal nee na su ubbee kaamil bi di jàng bu nit ne salaamaaleykum nee na day ub kaamil bi ba noppi door ko ne bismillah ndax nee na damay ragal mu dugg jàpp ne man mii dama saxoo jàng alxuraan fu ma toll te kon mu mën maa yëkkati ba teg ma foo xam ne nekkuma fa al imaamul Mawardi muy boroom xam-xam bu mag boo xam ne képp kuy jàng xam-xam ci usul ak fiq xam nga ku mu doon téeréem yim taalif ci fiq ak usul kenn xamul nu mu ak ci tafsir waaye ci ak dundam dafa sartoonte woon ak i taalubeem ne ay téeréem buñ ko tasaare lu dul gannaaw bu faatoo su ma faatoo nag na ngeen ko tasaare ndax bindee yi mën cee jariñu kon ma Mawardi kañ la tasaaroo mooy gannaaw boo xam ne génn na àdduna pour wane seenu sellal benn bis imam bu ñuy wax Abdullah ibnu Muhayriz dafa dugg ci benn bitig di jënd mbubb mbubb ba ko taxoon a jóg mu di ko jënd benn waay romb ko xam ko daldi wax ak borom place bi ne ko ah kii taxaw di jënd de mooy ibnu Muhayriz na nga ko bàyyi xel ci li nga koy jaayee nee na fekk mu yor mbubb mi di ko xool bi mu waxee loolu mu mer moom ibnu muhayriz sànni mbubb ma daa di ne ko noon danoo ñëw di jënd si ci sunuy alal waaye dikkunu di jënd sunu diine danoo ñëw di jënde alal waaye dikkunu di jënde sunu diine daa di koy won gannaaw dem al imaam al xasan al basri mii nett li melokaanu saxaaba ya ndax ku taqu woon ak saxaaba yi la nee na daana am ci ñoom kenn koo xam ne dana jàng alxuraan ba mokkal ko lépp te nit ñi yëguñu ko xamuñu ne kii ku mokkal alxuraan la bu ñuy lim xufaas yi duñ ko ca boole nee na daa nga gis ci boroom xam-xam yi ci ñoom ku jàng ba yor ci fiq lu kenn xamul nu mu waaye nit ñi duñ ko yëg ndax wonu leen ko nga gis ci ñoom koo xam ne day nekk ci këram di julli julli yu yàgg léeg-léeg sax aw gan nekk fa ca kër ga waaye kenn du ko yëg mu ne man daal ña ma gis ay nit lañ yoo xam ne jépp jëf ju baax joo xam ne mën nañ koo nëbb kenn du ko gis abdullah ibnu mubarak rahimahullah wa rahimahum jamian ci benn xeex boo xam ne dafa génnoon di xeex ak rome yi ànd ak jullit yi biñ génnee ba àgg jàkkaarloog noon yi benn yéefar bu ponkale koo xam ne moo doon seen jàmbaar mu génn taxaw ci diggante ñaari sàppe yi daldi ne ku ma ñeme na ñëw noonu lañu daan def benn jullit génn jàkkaarloog moom yéefar bi dal koy rey ci lu gaaw keneen génnaat mu reyaat ko keneen génnaat mu rayaat ko fitna nag di bëgg a dugg ci jullit yi am keneen ku génn muur kanamam jàkkaarloog yéefar bi diir bu gàtt mu rey yéefar ba jullit yépp dajaloo wër ko di wax kii ku mu doon mu muur kanamam ndax bañ ñi gis ko ku ñuy wax abu omar ñëw ba jàkkaarloog moom ñori kanam gi xool ko gis muy abdullah ibnu mubarak mu ne ko ah yow a ndekete mu ne ko ah waaw yow abu omar danga may toroxal danga may yàqal daldi mer ci kanamu mer moo xam ne mu rëy la kon ñooñu noonu lañ menoon ali ibn al xusayn zeyn al abidin mooy sëtub ali ibn abi talib radiallahu taala anhu ndax xuseynu moo ko jur ni mu daan def bu jekkee ba guddi mu dajale alal yu bari ay ñam ay yu ñuy mën a jariñoo ay xéewal ay yéere gàddul ko boppam du ko yónnee sax ndax bëggul ma siiw su ko gàddoo ba ci buntu kër ñi nga xam ne ñu ñàkk lañ mu teg ko fa jigéen ñi nga xam ne seeni borom kër dañoo faatu amuñu ku leen yor mu teg fa noonu lay toppi buntu kër yépp ci màddina ba mu jeex suñ xëyee fekk xéewal yi foofa ñu daal di jël te duñ xam mukk kan moo ko fa teg kenn mësul xam loolu ku ko fa teg lu dul bi Zeynul Abidin faatoo ñu gis ne saraxi sekkare yooyu daan ñëw ci kër yi gisatuñ ko ñi xam ne kii kon moom la woon ña ko doon sang gannaaw bu mu génnee àdduna nee nañ ñu fekk ci gannaaw gi ay ñuul ñuul ak ay mbir yoo xam ne ci ay ñu daal di xam ne kii lim daan gàddu di ko yóbbu moo ko ko teg ayub asaxtiyaani imaam bu mag la ci imaami taabiin yi jaamukatu yàlla bu mag la su daan toog di jàngale sax léeg-léeg mu jekki ba mu yàgg àgg ci xadis boo xam ne yaramam day daw bu tàmbalee di jooy du bëgg nit ñi gis muy jooy ñi jàpp ne ku ragal yàlla la waaye nee na dafay jël musuwaaram daal di ñandu daal di ne soj mi day dafa bari lool soj mi dafa bari lool ndax bëggut ñi xam ne day jooy benn bis kenn benn waay nekk na ci jàkka ji ñiy julli mu sujjóot di jooy jooy yoo xam ne yu jéggi dayo la yu metti saxaabi bu mag bu ñuy wax abu umamat al baaxili ñëw ba ci moom fëgg ko ne ko lii ngay def de bu doon ca sa biir néeg lay gën jooy yi ngay jooy di ko dëkkal nit ñi bu doon ca sa biirum néeg lay gën kon nga xam ne ndekete ragal yàlla geeg màndarga yéeg ba ci jooy yi sax seytaane mën naa ñoom ragaloon nañ ne seytaane mën naa jaare foofu ngir nit ki wane ci boppam yàlla nañu yàlla musal moom ayub daana def bu guddee mu fanaane di julli su fajaree su jógee na muy xaddami na muy def day won nit ñi ku ko dégg danga naan kooku day mu ngi door a yeewoo ci ay nelawam ndax bëggul ñu xam mukk ne moom muy day julli bu guddee Muhammad ibn Aslam ab taalibeem taqoon ak moom nee na ñaar fukki at nee na mosuma koo gis mu jóg taxaw ci kanamu nit di naafil la ñu koy xool lu dul bisu àjjuma nga xam ne amu ci pexe nee na daanaa ko dégg ay yoon yi yoon <clears throat> muy giñ di wax ne malaaka yi may bindal de su ma leen mënoon a nëbb ba dañ gis sama jaamu yàlla kon ma def ko ndax ragal a tàbbi ci ngistal kon nga xam ne jullit bi loolu ci li ko war a tiital ci la bokk Dawud ibnu Abil Hind nee nañ woor na ñeent fukki at ñeent fukki at yoo xam ne da ko woor te waa këram xamuñu ne moom mi day woor nu muy def bu xëyee di dem ci palaasu liggéeyukaayam dajale loo xam ne dana tolloog la mu war a mën a lekk ci bëccëg bi yore ko ñu defee ne kooku ab añam lay yóbbaale te fekk dafa woor su génnee sarxe ko yendoo kooram bu ñibbisee ànd ak waa këram reer ñooñu duñ ko xamal dara kon loolee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci juróom-ñaar ñi nga xam ne yàlla daf leen di may ker bis boo xamee ne ker amut mu boole ci koo xam ne buy joxe saraxam da koy nëbb ba loxo càmmoñ bi du yëg ne loxo ndeyjoor bee nga koy joxe ñooñu loola lañ déggoon moo tax seenu jaamu yàlla denc ko moo leen gënaloon denc seenu xaalis da di nag seen fiq dafa doonoon loo xam ne lu jéggi dayoo la ndax doonuñu ñoo xam ne dañoo bindoo nëbb ak jaamu yàlla ci maanaam ne duñ tasaare xam-xam wala duñ tasaare nos di jaamu yàlla uxu kay dañoo yoroon ay taalibe yoo xam ne dañ leen di yar ci xam-xam di leen ko jàngal di def jaamu yàlla yooyu ci seen kanam ñi di ko jis waaye nag seen mbir àggoon na ci nañ yare ñooña luñ warta tasaare lu ne dañ koy tasaare dañuy téye seen làmmiñ loolu moo tax bu ñooñu génnee àdduna rek seen taalibe yi tàmbalee bind ci ñoom ak wax ñoom ñii liñ doon dund ndax bëgg loolu tasaaroo nit ñi mën koo dundee kon mbokki jullit yi jullit bu xool lii ak melokaan yii mën naa laaj ñii fan lañ leen tollu fan lañ tolloogu nun ci ñii seenug sellal ak sunug sellal fuñ tollu seen fiq seen xam-xam ak sun xam-xam fan lañ leen tollu seen pas-pas seen ngëm yàlla seen tawxiid fan la toll sun pas-pas ak sun ngëm yàlla ak sun tawxiid sub jullit ma ne taxaw ci rajo ne ci diine lay waxtaane di wax ba mu yàgg ci biir wax ji mu ne man day xawma ku ma gën a tabe ay nit toog ci rajo di déglu ab jullit taxaw boo xam ne dafa toog ne day jàngale diine toog ba mu yàgg mu ne man xawma ku ma gën a tabe ndax def naa nangam ak nangam ak nangam ak nangam wax yu mel noonu boo fàttalikoo ne sun jamono lu mel noonu noo koy dund fàttaliku ne asalafu saalex ñi nuy askanoo lu mel nii lañ doon dund kon danga nga yëg lu yaatu li dox suñ diggante ak ñoom danga nga yëg ne suñ nu rawee ci lu bari lu mel nii moo tax danga yëg ne war na noo laxasuwaaya laxasaayuwaat waat danga yëg ne war na noo yokk sunu dox ni góor góorloo ci bunti pas-pas yi di ni góorgóorloo ci bunti daw bidaa yi nu ni góorgóorloo ci bunti defar jikko yi ci lu nëbbu ak ci lu feeñ fexe ba sàmm jaamu yàlla yi ba ku ci yoonam nekkul du ci nekk audu billahi min alsheytani irajim fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalixan wala yushrik bi ibadati rabbihi aada ahada borom bi tabaraka wa taala nee na képp koo xam ne gëm nga ne da sa borom ëllëg jëfal jëf ju baax ba noppi sàmmal jëf ju baax jooji ba keneen du ci amub cër loolu mooy dëppoog lii nga gis ñooñu doon ko nëbb loolu ñu doon dund di nëbb si jaamu yàlla bañ keneen am cib cër moo tax wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada jaamu yàlla gi ngay jaamu yàlla bul ci jox keneen ab cër lépp na yàlla kese tax jamono yoo xam ne jullit bi dem na ba àgg ci loolu dana mën a dem nag ba àgg ci nekk nitu yàlla ci kaw suuf bu ko ñaanee mu may ko bu ko jéggaloo mu jéggal ko bu fekkee ne dogu na ci ngir njàqare wala ngir dimbali diine borom bi tabaraka wa taala fekkee ko ci foofa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 wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa